bokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di santaat a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ak bis bu tedd bi ñu nekk dañuy desuwaat rek ci tomb bi ñu mujjoon a waxtaane eh, am luñ ca tàmbali woon tam jot a muy lu jëm ci tuub ndax tuub weer wi dafay weeram Sëriñ day wax ne moom ci buy waajal koor ci rajab la koy tàmbalee yeesal ci ak tuubam su ko su Shaban ak mu baraxlu mu loya yeesal ceeg tubam sukor ak mu mu yeesal ko soobu ceeg moom lillahi xad tubtu fi Shaban an rajabin mujaddidan fiika fashhad li bi tarki dadi jotoon nañ ci indi ay leeral yu yaatu ci jëmmi tuub bi mu am ak bi ñam war a bañ a sàggane ci tuub an fu mu jëfe bàkkaar ca saasa mu war ko dal di tuub te bañ a nekk ba fayantoog yàlla agsi ci moom tuub nag waxoon nañ sàrt yi du caagi ne da ngay def la neex ne tuub naa mu jeex leeral na ci aju ak lenn ci gaaf yi nga xam ne am na ko jotoon nañu tudd ay yëf ci yi nga xam ne bàkkaar mën na ko jur muy bari bàkkaar waxoon nañ ne dana jural nit ki ak texee di dana ko jural ñu dàq ko ci buntu bi yàlla subhanahu wa dana ko jurale ñu xañ ko sabab yi jur yërmande yàlla ndiki kàttanug jaamu ak kàttanug bàyyi mooy ma leerloon itam ne moo tax nit su fekkente ne danaa def lu baax lu mel ni julli mbooloo dem ba mujj mel ni da koo të ñàkkul bàkkaar mu def bu ko yóbbee loola wala boog mu daa taxaw guddi dinaa fi la mu mujj mel ni da koo të ñàkkul bàkkaar mu def bu ko yóbbee loola wala boog mënatul jàng alxuraan mel dañ ko dëddaleeg moom ñakul xol xol bakkar bu mu xol bu ko yobbi lola kon bakkar dañ yobbi nit ci yu bare bare sin suñu di wax ne kasratuha tufdi ila shaqawa wa tardi wal xirmaani wal adawa bakkar na su baree mën naa tax jam bi sun bam gaawee ko mbugalam fi ci motax moo ko jëfkatu bakkar dañu lepp lu mu gis ci lay niru aw tiis na xamne mbugal mako ko sun borom gaawel ci aduna lepp lu mu dajal ci lay niru banexit na yegne mana istidraj la mana njaayre la ko sun bam di jay ngir mu gëna mana mën gën ko mana dal ci kawam mu aju top yalla su aju top yalla mom dañu wax ne lu mu gis ci euh, luy tiis na xam ne natt la bëgg sunu borom di natt ngir sippil koy bàkkaar wala yokk ko ay daraja su gisee itam nag lu lu dëpp ak bànneex na xam ne xéewal bëgg sunu borom xéewale la loola wax ne wa minhu annama yusibuhu abad min albalaai niqmatullahi al ahad wa annama yanaaluhu min an niam makrun ma sidraji sil ansi naam bi aksi di taati laa taxqar laa a abadan ban walaw xalla fa baadir lil ahad mu ne ko na gaawantu jëm ci ak tub gu sell ba ca yam waaye nanga ko kafaara soo tubee ba noppi fa nga defoon bàkkaar ba defa lu baax mu wutu ko bu ko dee dana ko far ndax am na ku masa laaj yu nu saasam ab dénk mune ko naga ragal yàlla foo mën a nekk ko né dolé mu benen dané ko atbii sayyi'ata alxasanata tamfuha nagay tofal def ju baax rafet ci ju ñaaw bu ko defee dana ko far so défé lu ñaaw bu tup ko ba noppi na def lu baax bu ko défé lu baax dana ko far eh, bu ko wax né nak takfir gogou mayes na ko def ci bari maanaam kafaara bakar kana boo ko man naa doon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa doon tahajjud mën naa taxaw taxaw guddi di julli na ko ragal yàlla mën naa doon liggéeyal waa ju baax kuy toppkatu yàlla wala toogaale gaa yu baax di bokkuñ jotaay te jëm yàlla rekk tax ak bari looy jéggalu yàlla rawatina lu ñu de sangub jéggalu yi nga xam ne jéggalu yi mooy seen sang allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatar bi a'udhu bika min sharri ma sanaq abu laka bi ni'matika ali wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant jéggalu googu wax na ni mooy sangu mboolem jéggalu yi mu ne rawatee nag ak julleem maanaam jullik lu ñu tuddi jullik sàbbaal jullik sàbbaal nga xam ne julli gu am solo goo xam ne dañuy wax ne yul saa dafa wax ne ku ko def say bakkar nu mën a toll suñu far ko safarna suñu far ko lepp mo da ne yun sallallahu laa wasallam ku ko man euh ko man bis bu ne nga diko def nang ko def ko ko manul aljuma june ben yon moy ay bis gu ne rek ko ko manul wer wu ben yon ko ko manul at mu ne benn yoon soo nga def ko ben yon ci sa dundu boobu mu nekk lu am solo eh, ndax li ma waxoon léegi ne boo boo jëfee lu baax fa nga defoon bakkaar bi dana ko far loolu alxuraan di fii leen lu mel noonu ci innal xasanaati yudhibna sayyiaati mooy julli juróom yi dañuy far bakkaar yu ndaw yi loolu ma doon leer léegi suñu wax ne bi tawbati minhu nasuhin wa ila takfirihi mithla salatika ala nabiyina salla wa sallama al ahad alayhi wal والأصحاب أبد وكتهجد الليالي بالخشوع وخدمة لكل صالح مطيع وكمجالستهم للباري سبحانه وكثرة استغفاري لا سيما سيده الذي اشتهر وكثرة تسبيح أيضا والفكر لا سيما صلاته وهي أجل بركة كما رواه من نقل كن لهم صلى الله mu mel nag jëf yu baax yooyu kon dafa yàlla ci jul bu nekk bu jëf bàkkaar ba noppi moo faaree ko ay ñaawteefam gannaaw bu mu ko tuubee ba noppi ndax sun moom da ngay gis ne saa su nekk day settee bu tuddee ay mbugal ba noppi da cee settee njëgam yàlla te tuub sellal gannaaw ba illa alladina taabu min baadi zalika wa aslahu fa inna allaha xafuru rahim ak illa alladina taabu wa aslahu wa waxtasmu billahi wa axlasu dinahu lillah xam ne yëpp da da ci settee kon ki nga xam ne tuub na la mu defoon ndax luñ lootu bu sellee ñu far ko te luñ far ak luñ bi nut ñooyam Sëñ Tuubaa waxoon itam ne dénk naa leen ngeen di tuub te yewne seen diggante ak ñi ngeen dëkkal ci ay wóori àdduna ak ñu ñu ñu ñu méngoo ay daraja ak seeni àndoo fu ñu mën a nekk wa aleykum bi an tatubu wa tasu baynakum wa bayna man jaawartum min al wasara wal wulaat wala ashaabi xaytu kuntum mooy ndax njàmbatal nit ñi yéen kat ci wet bu nekk mu ngi juddoo ci ñàkk tuub rek kon tuub dafay lu am solo loo xam ne jàpp war na ko bàyyi xel fu mu kon tuub daal mooy li ñot di mboolem mbégte yi waaye mooy jañ mboolem lor yi kon nangeen ngeen taqoog tuub kon seen borom daan soppi seen mbir yóbbu ko ci anam nga gën a rafet mu ne lii na dama leen ko dama leen ko dénk gannaaw bu ma ci jaaree ba jàll ba xam ne ci nekk تسون بون ولا ينبئك مثل خبير سون بون نك موي كي نغوتوب تاي جامو نيكو واخلي بوفم هو اللي سيقبل تبارك عن عباده تاي ورحمته وسعت كل شيء سمي يرمانيت خاج نيب خاج نانسي ني واخ نك ا دانيو واخ ني الا عجل من الشيطان ياكنتي جو جيس wala teel ko ci si la bàyyi ko waaye ñu ne nag yàkkamte nag am na ca juróom mën a am ci juróomi barab moom bokkul ci seytaane dañoo wax juróomi juróomi yëf yii moom gaawee ko moo gën yeexe ko ba ci njëkk mooy ku fi bàyyi ko luñ ko gën a teel a denc moo ci gën gone gu jigéen ju toll ci sëy lu ñu ko gën a gaaw a maye moo ci gën ab bor lu ñu ko gën a gaaw a faye moo ci gën mooy yàlla luñ ko luñ ci gën a gaawe tuub moo ci gën gan it luñ ko gën a teel a joxu ñam moo ci gën te xam ne juróom yooyu moom dañoo xam ne yàkkam ko ci seetaan la la jóge ba mu des juróom yi jël nañ ci abi zarin radiyallahu anhu wax ne sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna li kulli da'in dawa wa dawa ad al-istighfar nee na jàngoro jooju sax am na saafara waaye saafara sa bàkkaar YouTube, mooy jégalu yàlla te mooy tuub moo alaihi wasallam waxoon ne yaa ayuha nnaasu tuubu ila llah fa inni atuub fil yawmi mi'ata marra yéen nit ñi tuub leen jëm ci yàlla man de bis bu ne dina tuub téeméer yoon dama dana dana leeral jublu ci lim bi waaye bari ga rek la ci jublu waxoon na it moom salaa ne man man lam yastaxfirillahi fi kulli yawmin marratayni faqad zalama nafsa képp ko dul jéggalu yàlla ci bis bi ñaar yoon moo toñ boppam amoon na ci banoo israil waxambaane woo xam ne dafa jaamu yàlla ñaar fukki at mooy yàlla ñaar fukki at benn bis mu ngi xool ab seetu gis ci ab sikki moom ay kawar yu weex maanaam bi jaaw mu tiit nag xam ne ak dundam eh, bi jaaw moom foo ko gis rek am na lu lay woon mu dal tuub daa toog daal di wax nag ilaahi ata'tuka ishrina sana summa asaytuka ashrina sana fa isaa raja'tu ilayka ataqbalu nii yow sunu borom topp naa la ñaar fukki at waaye mooy naa li ñaar fukki at moo ndax su ma desee ci yow danga ma nangul ne mu dégg kàddu ko wax ne ahbabtanaa fa ahbabnaaka wa taraktanaa fa taraknaaka wa asaytanaa fa amhalnaaka fa isaa raja'ta ilaynaa xabilnaaka danga noo soppoon nu sopp la ba yàgg nga bàyyi nu nu nu bàyyi la nga di nu moy ñu di la ndànkal rek di la di la néegi bis soo delsee ci nun nag ñu nangul la kon nag ci dégg ne kon bàkkaar lu mu rëy rëy bu ko saa bu ko tuubee te sellal mën a yaakaar njëggal wax ne na aadama alayhi salaam muy sunu maam aadama da waxoon ne inna allah taala ata ummat muhammadin sallallahu alaihi wasallam arbaa karamatin ma atain ma ataniha ne na sama si di sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw xeetam yalla joxna na ñenti ñeenti yo xana man mii seen mam joxumako ba ci ñeek moy man ba ma moyee yàlla ba mu wàcce ma ci suuf ba mu ma ci suuf dama dem ba mak tuubale ko fu mu dor ma nangul te xeetu Muhammad nag fu ñu mën a tuubee suñu boom jéggal leen ba ca topp mooy nekkoon naa di ko wodd bi ma mooyee nag suñu su suñ rafleel ma te xeetu Muhammad nag dañuy moy yàlla ci rafle ba nag suñu boom leen ñetteel bi may ba ma moyee suñu boon dafa teqaleeg sama soxna te xeetu Muhammad dañu mooy yàlla ba noppi duñ leen teqale seeni soxna ñeenteel ba dama mooy yàlla ci na ñu génn ma indi na xeetu Muhammad na dañuy mooy ci àdduna ba noppi ñu génn leen jël leen ajur yóbbu leen yóbbu leen ajjana mooy loolu xeet ñeenti teraanga la yoo xam ne waaye isa taabo la wax nag fa yadxuluunahaa izaa taaboo maanaam su fekkee lu ñu ma yàlla ci suuf bu ñu tuubee suñu doom yóbbu leen aljanna ne kon ñeenti eh, tiraangal yu leen suñu jox te joxuma ko may seen joxuma ko man mii seen moo tax xokkamaa yi dañuy wax ne ku ñu wër sëgale ñant xamal ne xëñeefu la ñant képp ku ñu sëgale ñaan xëñeesu la ak nangu ndax suñu boobu moo ne ad'uuni astajib lakum da ngeen ma ñaan ma may leen képp ku ñu sëgale jéggulu yàlla xañeesu la ak njéggal ndax suñu borom moo ne innahu kaana gaffaara yàlla kat ku mën a jéggale la képp ku ñu wërsëgale sant xañee fa la ndollan ndax sunu borom moo ne la in shakartum la azidannakum képp ku ñu wërsëgale ak tuub xañee fa la ak nangu ndax sunu borom moo ne wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yafu ani sayiat kon jaam bi su dëggalee ci ak tuubam day feeñ ci léppam ak tuub ak tuub su dëggoo day feeñ ci sa lépp abdullah ibne masud radiallahu anhu dafa solo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne atadruuna man itta'ib ndax xam ngeen kan mooy ku tuub dëgg xul naa allah wasulu alam ñu ne ko ah yàlla ko yónni rek a xam de wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man taaba walam yataallami al ilma falaysa bi taa'ibin képp ku tuub ba noppi gisoo ko mu farlu ci jaam yàlla ak tubam yarut wa man taaba walam yurdil xusama falaysa bi taayib képp ku tub te jëmul ci ña nga ñam ñam jubóolu mu fexe jubóog ñoom gërëm looleen nañu xam ne kon loolu du ak tuub wa man taaba walam yuxayir libaasahu wa zinatahu falaysa bi taayibin képp koo xam ne dafa tuub te soppiwul aw doxinam da ko tudd koddaay ak ak ak ak wattaay eh, ci melokaan nañ xam ne tuubut man taaba wala yu baddil ashaabahu fales bi taay képp ku tuub te ay àndandoo ndax lu bari àndandoo ci dugal nit mu ne ku te soppilu ay àndandoo na xam ne tuubut wa man taaba walam yuxayir xuluqahu falaysa bi taayib ku tub te soppil jikkoom tuubut wa man taaba yatu firashahu wa bisaatahu falaysa bi taayib képp koo xam ne tuub na eh, te jógul farlu maanaam wàccub lalan dem ca daree jaamu yàlla da ngeen xam ne tuubut wa man taaba wa lam yatasaddaq eh, eh, falaysa bi taybin képp ku tuub te sarxiwut dañu xam ne tuubut kon dañ ca dégg rek ne tuub kon bu dëggoo ci jaam bi rek fawoo kon ay jikkoom dafay soppiku aw melokaanam soppiku tuñ tuub ga feeñ ci léppam ci wax yiinam ci jëf yiinam ci jëflanteem ak ci léppam Eh, bu ko defee nag kon eh, mën nañu tax foofu incha allah ba deesuwaat gën cee yaatal ndax tubunt la bu yaatoo yaatu boo xam ne may si ci waxtaan ak jotaay jotaay tëddu yax ñu ngi jégalu baax yàlla sunu boom bool dimbale bool defal tawfeex sunu kilifa gu mag gi sunu boom yàggal ko fi lool di wér ko Cheikh Sidi Muxtaar ba mu àggali mboolem ay naale ba ko yeneen te sunu boom def nu ñuy dégg dégg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu na sunu taalibe asalaamaaleykum